Sunugal 24 point net soyez le premier à être informé sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net. Arnaud. lii yëpp c'est un manque de respect. jàpp xaalisu Sénégal. dilapidé ko. fowee ko say say sa ñi nga fal sàcc ko ngeen àndandoo sàcc xaalisu Sénégal dëkk bi amatul xaalis nga jël yokk ko ci courant yi nga ne léegi na ko peuple bi fayaat pour lan ça c'est quoi c'est manque de respect et manque de considération vis-à-vis des Sénégalais. tey la mooy man. non non dama ne boobaag léegi sàcc na bañ. tu bien dit combat. c'est pas une bataille c'est un combat et un combat on sait que ça peut commencer aujourd'hui mais on sait pas à quand on va atteindre notre objectif on ne se bat pas pour la cherté de l'électricité ou de quoi que ce soit ok dafa ñëw bokk ci dugg si mais par exemple man li ma xàmmee li ma jàpp mooy j'ai commencé le combat à l'âge de saison ans ci laa def de conscience xam ni je dois m'engager pour ma patrie et tous ces jeunes que tu vois aujourd'hui ici. Ce n'est pas une bataille, encore une fois. Le combat, on est les suicidaires. On va faire un suicide individuel pour une résurrection collective. C'est pour la génération future. La prochaine étape Prochaine étape, on va continuer de dire non, non langue, non bagne, non tëdd ci tali bi ba keroog Macky Sall di respecter les Sénégalais. def nañ ko muy dëgg ma jàpp ci lu dul dëgg du ma ci du ma ci dugg du ma ci bay naa ko ba bu ñu manifester bu ñu amee bu ñu amee euh, kii permission du ma dem waaye ndax du ma daw waaye fekkee ni lii dëgg la te ñëpp ci jàpp ma jàpp ci sëñ Tuubaa amul morom te xam naa ne su dul woon dëgg du ma dëgg maa tax a jóg te te yàlla ak yent ba xam ne ni lii bu bu dul woon naag bu dul woon dëgg du ci sore fen la fen kese la fen la ñu dajale guddeeg bëccëg maa ngi koy seetlu waaw. dafa ñu gis ne yokk bi yéen ñu mag yi yor kër yi yéen la gën a sonn. ñun la sonn ba noo gën a sonn ba waaye luñ ci mën gannaaw gannaaw moom moo nu ko teg waaw na ko tegu rek yàlla nga fi yàlla dana ko teggi barke borom Tuuba dana teggeeku day metti rek waaye day teggeeku waaw. fii kenn war fi woon xaj fii waroon nañ fi woon xaj sax. ñëpp waaw ah, ñëpp mënoon nañu toog seen kër ma ne discours am déglu dégluwu ma ko dégluwu ma ko xam nga kuy déglu discours dafa fekk nga déglu ko dégluwu ma ko dama ko dul déglu parce que dama gëmul dama ko gëmul boo gëmul doo déglu buñ sama ban sama président yàlla la ak yonent ba sëñ Tuuba mooy président la république mooy président waaye man sama président yàlla ak yont ba sëñ Touba mooy sama président. ñaari raka yi mu def ci góorgóorlu dar fa laa juddoo ñaari raka yi mu def moom def indépendance kii du indépendance dépendance la kii indépendance la du indépendance dépendance la. l'information à sa juste valeur, c'est ici même, sunugal24.net